Vous le réclamiez Le voici. Satisfait de notre premier séminaire de formation à la maîtrise de la prise de parole en public tenu à Dakar en février dernier, vous étiez nombreux à réclamer la prochaine édition. Alors, l'opportunité tant attendue se présente à vous. Ne la ratez pas. Paul Mendier NT Conseil vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Dakar pour un séminaire à la fin duquel vous éliminerez votre peur de parler avec éloquence, clarté, force de et bien d'autres compétences en art oratoire. Si vous voulez exceller et impacter votre public, alors réservez votre place et laissez-nous vous transformer en téléphone ba wax na bay de booba Moussa Lodj moom bombardier borom guddi noonu ak roos yi nga xamante ne ñoo noonu fii nga xamante bi ni mooy ci buntu stade bi fi lay defee li xam ne mooy open press bi moom Serigne Dia Bombardier nga gis ko mu ànd ak garde rapproché yi vraiment ñoom tamit seen liggéey rafet lool mu ay nit ñoo xamante ñu sérieux la ñu kuul ñu bëgg li ñuy def tey la gis nga Cheikh Niang mi ngi doon Cheikh Niang ngi doon teel naa ñax lool Malick gis nga Cheikh Niang mi ngi doon mbokkam la la Imam Sel Malick demal mooy andu leen noonu day baax. mu waaw waaw waaw waaw. billaay wallaay walo Thank you. ñu ngi sax ñu yaakaar donc li am solo mooy bu yàgg te mu gaaw mu am ndam incha allah ndam loolu bu yàggee dinañ ko am bu gaawee dinañ ko parce que pare nañ ko def. démb ak wàllu presse am na ñu def day waar démb ak yàlla loolu waxoon naa la sax bu ko seen waxee dañ koy gëmal donc ku ne xam naa seen gaynde la bu daaw du dellu ginnaaw mosoo gis ma seen du dellu ginnaaw keroog bi combat bi génnee tànk keroog la ma seen gën a sànjaafu Bombardier gaynde la ñaari gaynde nag bu ñu dajee day gaaw a sotti. sànq commentaire yi bi ñu ko expliqué commentaire bi nga non Youssou moom mooy lu booy bi parce que tey les Sénégal li may wax ñoom ñoo ko gën a xam ñoo la gën a xam ne ëmb gaynde la bu mos a gis ko man moom bu ndaw donc tey di bëreeg moom tamit man de tey ma ne ko naan ko li nga xam ne mooy ay qualité mais dama la ko wax dama ne la ak lu mën a am Bombardier day toog ci kaw am na seen te léegi nii laa gën a wax loolu foo ko teg waaw foo teg loolu. teg ko sama gëm-gëm ak yëg-yëg bi ma am ci combat sama gëm-gëm ak combat c'est ma conviction personnelle ak ku ma naan incha allah le 27 Eumeu Sène day dëgg. mën nañ cee xaar xaar xeex bu bëri. ñaari gaynde lañ lu ne mën na ci am dégg naa Eumeu Sène ci interview bu ko defoon tey wax ne foo jaar Bombardier jël ko kon moom bu dëggalee loolu rek xeex bi day am xam naa ne borom jom la te du daw te Bombardier dee léegi moo ko gën a daw kon loolu bu waxee bu ko waxee rek moo mën a nekk mu mel ni combat bi waa Mbour dañ koy décidé ànd ak Bombardier gunge ko Dakar dañ leen ne lu mu a marqué mën na ko a a nga laa passé Gaston dafa ñaax waa Mbour te Mbour waruñoo sax toog di xaar Gaston di leen ñaax nga xamante ne c'est l'un des rares mbër yi nga xam ne mooy toog jóge si dëkkam dem Dakar xeexi ji si Mbour guddi lu nekk nag indi na ko Mbour ci ci wàllu si kon kooku muy jóg Mbour yëpp lañu ko ñu di ñaan rek di leen ci ñaax mooy que ni combat bi c'est un combat très important combat yi am na Mbour yëpp dox ci ginnaaw dugal ko Dakar la soirée du 27 incha allah mu daal di ëmb seen ñibbi seen objectif bi du dem dóor nit bi mu daanu objectif bi mooy dem am ndam kon lu mën a am rek moom mooy génn am ndam te incha allah ci kàttanu yàlla day am ndam jàppal li ma la wax sant am na direct wala yoon du ba mërje mooy wax incha allah le 27 ba mërje day am ndam direct wala yoon lu mu mën di doon parce que boo mërje pare na ko lépp bu dee direeku mën na direeku bu dee yot mën na yot bu dee jëfit jàpp na mën na xam nga tey jii bu ma see dafa nekk mbër moo xam ne boo mbëree moom dafa war a pare pour lépp parce que un leader petit de temps lépp looy xalaat ci mbër bi ci moom man wax ne boo ma see lii la gën a mën mën na ko wax parce que qualité yi daje ci mbër yi dafa daje ci moom mbër yi nag gis ko xam naa ne benn forum la ñaari forum mais am na ay forum dafa bari kon kooku muy bëri boobu dafa war a pare na pour lépp ma waxaat la ko incha allah le 27 Bombardier day am ndam. est-ce que pare ngeen xaw ma kan mooy daal pour bu ngeen amee ndam yéen ngeen ngeen ngeen jëm ci kaw. incha allah day ñaan yàlla am ci ndam danañ ci am ndam. combat jee comme ni ko rek instant bi li mu dese ci carrière mooy c'est terminé en beauté mu ngi nekk di ko def yàlla na ko yàlla jàmbale nag ndax doomu aadama moom mbër mbébét rek la am mais yàlla mi nga xam ne lu mu gunge loolu dem yoonam yàlla na ko yàlla gunge ci loolu mu am ndam jéem a seet incha allah toog xaar leneen comme ni ma la ko waxee sànq troisième fois des arènes y a pas deux cent trois loolu la non lu la ñu di jigéen li indi ñaareel bi est ce que mënu indi ñetteel bi yàlla moo xam na ma taxaw wax yàlla xam na lu doomu aadama xamul dencal na doomu aadama lu mu xamul. si yaa may dégg bu baax dencal na doomu aadama lu mu xamul te Bombardier dafa am gëm-gëm gëm-gëmu Bombardier moo tax mu dugalaat deuxième roi des arènes si biir bureau. Santa fi ñuy loolu am. fi ñuy terminé mooy sa carrière. gis nan nga jëloon avance blessé est-ce que pare nga fi toll nii physiquement pour bëre ak sa adversaire Tanor. man pare naa tey. blessé blessé naa parce que y a des excuses yoo xam ne je peux plus me permettre cela bu njëkkoon dama naan blessé sox ak blessure gaañ après le combat ça sera que des commentaires négatifs non day wax rek day laaj bëggu ma loolu. gars yi bëri na nag da ngaa ruux tey. y a pas souci par rapport loolu loolu du ma ci tontu waxoon naa ko la fois passée je réponds par les actes est-ce que oui un sportif yow yaay compétir yow yaa entraîné yow yaay gaañu boo gaañoo nag la logique voudrait que nga noppal sa bopp dem faju ñëwaat. bi loolu laa def ruuxul mbër bi naan man man jàkkaarloo gaynde gu ne jàmbaar ju ne ci biir làmb te incha allah waxoon naa la que Tanor day daanu dama koy daan ci kàttan yàlla. déggu ma. Tanor day daanu dama koy daan combat boobu mooy gën a yomb sax sama combat bu wërs man waa Lour ma bëre yëpp dama leen a daan. Tanor amul jàmbaar ju daan bi biir kër Tanor biir néegam dama ne la biir këram biir néegam hmm. ma fekk ko fa daan ko ñibbi si waay def fu mu Vous le réclamiez, le voici. Satisfait de notre premier séminaire de formation à la maîtrise de la prise de parole en public tenu à Dakar en février dernier, vous étiez nombreux à réclamer la prochaine édition. Alors, l'opportunité tant attendue se présente à vous. Ne la ratez pas. Paul Mendier Conseil vous donne rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Dakar pour un séminaire à la fin duquel vous éliminerez votre peur de parler en public. Vous saurez captiver l'attention du public. Vous communiquerez avec éloquence, clarté, force de persuasion et bien d'autres compétences en art oratoire. Si vous voulez exceller à l'oral et impacter votre public, alors réservez votre place et laissez-nous vous transformer en un excellent orateur.